xam ne fas ne ko liggéeyal maam maam bu sell bi mën ko def ci coobare incha allah ginnaaw loolu dellusiwaat nañ ci barabu sell solo xam xamante ni fas nañ cee ànd ak ku ñu ràññee ci dëkk bi ci xam-xamam ci gëstoom ci yittewoo li nga xam ko lool ci ay conférence muy taxawee mu jàngee fi nga xam ne fii la ñëpp di jàng jàngale ñëpp di jàng mokkal ko di ko mag boobu nga xamante ni doy na xam-xam. biñ ko mokkale itam wéyale ak jàngam ci li nga xamoon ay majaalis téere xam-xam yi ñu xam ràññee ko too ni doon soxna yëpp nga jaar ci yooyu moom jaar na foofu ci ay barab yu fasanti ko nag waaye mën nañ ci ràññee rek fi nga xam ne moo di jaamal ak fi nga xamante moo di siñ am na siñ Mbàkke Abdourahman yooyu muy jaar la yoo am solo yoo xam ne xam naa nekk di ko kii sax dina dina xaw a gudd loolu ndax jaar-jaar bu gudd foofu bi ñu fi jaaree ba noppi nag tey jii nag fi ñu wax ak yéen mu ngi jàng di jàngale li di alxuraanul karim di téye seen di jàngalewaale majalis di def ay conférence tey jii nag ñu woo ko fii ci jumaa yi Tuuba ngir mu ànd ak ñun ci waxtaan wam solo yi nga xam ne daay moom mu xadamatul xidma ñu koy taxal kon si Souleymane Badiane balaa ñuy mën a sori rek dañ jox kàddu gi di ñaan di bu baax a baax euh, dënn ubbeeku lan lañ fecceeku mu ànd ak leer boo xam ne nii ñi koy déglu dinañ ci mën a tàmbal bu baax a boo nga xam ne bu ñëwee ci jëppaatam rek ku ne liñ ci foofu ak liñ ci jàppoon ne noonu laa amee solo mën koo jëriñoo kon fan yàlla fan yàlla ko fàttal ci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 المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di néewu néyoob lislaam boobu ci jotaay bu màgg bu tedd bii ci jamono ju tedd jii di shahru ramadan di ziyaara fadilatu cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu mu dolli koo yàggal dolli ko ak wér ba mboolem ay naaram ci diine jéeg yoon yi mu mën koo matal ba naal yeneen naal matal ko te ñaan du ko am moom waaye di ziyaara ak di ndokkeel daayira muqaddimatul xidma ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla di liggéeyloo liggéey bu màgg bi ci barab bu màgg bi ñu wuutu fi mboolem taalibe ak jullit yi bëgg lu baax yépp di ñaan suñu borom doon leen ak kàttan ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee lépp di lu rafet di nuyu di ziyaara di ndokkeel képp kuy dégg suñu kàddu ci jotaayu tay bi ñu war a ñëw ubbi benn bunt jàngat benn tomb ci diine muy fiqhul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar di buntu bu rëy bu yitteel képp koo xam ne nit la koy dund ci kaw suuf rawat na muy ab jullit te buñ demee ci alquranul karim buñ demee ci jàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxam ak ay jëfam ci njàngaleem Serigne Touba radiyallahu anhu ak nit ñu baax ni dañuy fekk ne bunt la bu yitteel bu mat di jàngat ndax bépp xeet bu mas a dund ci kaw suuf ak jamono ju mën doon nag barab bu mën doon mboolem xeet yi mas dund ci kaw suuf yàllaa ngi tàggat ay tànneef ci mbindeefam yi di leen liggéeyloo ci buntu bii muy al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar ndax day lu mboolem yonent yi yàlla yónni alayhimu salaatu wassalaam waaye mooy liggéeyu mboolem boroomi xam-xam mboolem kilifa yi nga xam ne feeñ nañ ci jamono du mën a doon ak barab bu mën a doon di wommat mbindeef yi jëmee leen ci aw yiw kon tomb la bu yitteel boo xam ne jullit ñi war nañ ci jàngalante war nañ di ci nafar di ko fàttalante jamono ju ju waaye rawat na suñ jamono ji waxtaan bi danañ ko toog tënk rek ci ñetti tomb gannaaw bu ñu xamlee lan mooy al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar danañ dem ci ak sunna ba gis ne la boo xam ne lu mënta ñàkk la lu war maanaam farat la ci ab jullit delluwaat ci alquran ak sunna ak ci njàngaleem nit ñu baax ni rawat na Sëriñ Tuubaa xam yan charte mooy dajee ci mu mën a taxawee liggéey bii di lu baax di tere ab safaan waaye delluwaat jàngat yan jumtukaay moom la nit ñi di dimbali ko yan yoon ak yan bunt la war a ubbi ngir mën a taxawee liggéey bu rëy bii ba am ci lim bëgg kon du ñu guddal foofu waaye dañuy dugg ci liggéey bi tàmbalee ñu xam lan mooy al ak al almaaruf baat la boo xam ne bu ñuy jàng alquran dañuy dajeeg moom lu bari dañuy dajeeg moom lu bari ci téereb yàlla bi baat la boo xam ne ñëw na fanweer yoon ak juróom-ñett ci alquranul karim te fu mu fi ñëwee yàlla dañuy soññe ma ngay tagg aw nit ñoo xam ne yaamuruna bil maarufi wa yanhawna anil munkar wala ma ngay ŋàññi nit ñoo xam ne dañoo neenal loolu duñ ko def wala ma nga tey joxe ndigal ma ngay woote jëmee ca baat bi nag euh, buñ ko waxee luxatan mooy lu ñu xam ñuy jàngal baat yi ak seen cosaan ak dañuy tekki baatu maaruf dañ koy firi ci anam yu wuute dañ koy firee mashhur di ko firee ixsaan di ko firee al albiru alxayr yëpp rek nga mën cee jàngat na mooy li mu firi mooy lu baax mooy mooy yiw mooy njëkk moo tax dañuy wax ne almaaruf ismun lima yaarifuhu alqalbu wa yatmainu ilayhi jëf ju baax mooy jëf joo xam ne xol da koy xam léeg-léeg du aajo sax jàng ak leerlu waaye xol moo ngay xam di ko nangu bu dee wax la nopp bu ko déggee rek xol mooy xam ne wax bu baax a bu dee jëf la bu ko bët gisee wala nopp dégg ko wala xel dem ca xel mooy xam ne jëf bu baax a kon ismun lima yaarifuhu alqalbu wa yatmainu wa taskunu ilayhi nafs muy la am xol ba tey beneen boo xam ne bu dee ci lislaam ndax wax nañ ne mboolem xeet yi mas a dund ci kaw suuf mboolem diine yi mboolem mbooloo yi xabaaraat yi mas a am ci kaw suuf yépp yitte woon nañu al amru bil maaruf wa nit ñu ne ak ñoom nan lañ déggee ñaari baat yi lan mooy maaruf fi ñoom lan mooy munkar fi ñoom yow jullit nag jullit bi nga xam ne yàlla daf laa taaral làmp bu leer nañ làkk boo xam ne asluha saabitun wa far'uha fi sama leer bu gënd loo diggante asamaan ak suuf leeralal la sa dund bàyyiwul la dara foo fi mu jàngal la wax la lu leer loo war a jëf naka nga koy jëfee loo war a bàyyi lislaam doonu di diine leer moom moo ñu xamal lan mooy maaruf soññi nit yi xamal ñu lan mooy munkar sib looñu ko daw looñu ko wat ni ko looñu ko moo tax al maaruf ci lislaam ismun jaamiun li kulli maa ulifa min taati llahi wa taqarrubi ilayhi wal ixsaani ila annaas wa ila al xalqi umuman baat la boo xam ne dafa boole mboolem xeetu topp yàlla mboolem ñuy jegeel nit ki yàlla baat la boo xam ne day làmboo lépp loo xam ne ak rafetal la moo xam wax la jëf la nit di ko jëf mu jëm ci ay moroomi nitam wala mu jëm ci yeneen ñi def yàlla yi doonte duñ sax ay nit kon baat la bu rëy baat la bu bu am sens baat bu am maanaa bu ñu xamee maxruf mooy lan rek day lan mooy al munkar wa bi diddiha tatamayazu al ashyaaw munkar mooy ab safaan ñu njëkk jàng ne al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar baatu maaruf ñëw ci alquran fanweer ak juróom-ñett yoon baatu munkar ñëw ci alquran fukki yoon ak juróom-benn te ñu gis ne maaruf yëpp yàlla da ciy munkar yëpp da koy tere da koy wax dikuloo loolu li ñu ciy déggee mooy lislaam bi diine amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar la téereb yàlla bi alquran téereb digle lu baax tere lu bon la mboolem lu nit xam ak lu mu xamul ci àdduna rek alquran digle na ko lépp loo xam ne safaan la alquran tere na ko xam-xam yi alquran làmboo nekk yi muy nekk ci xisaay muy jiitu ak di xabaar lu ñëwagul yépp ngir lan nañuy roy ca lu baax di wax ni ku la nga xam ne ab safaan la kon mën nañu wax lépp rek amru bil ma'ruf la wa nahyu anil munkar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko tuddee woon rasulul amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar doo juum boo ko tuddee woon rasulul amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar juumoo da ngay fekk ne tur la wu méngoo ay melokaan méngoo ak defam méngoo ak diine bi nga xam ne moom lay indi mooy lislaam moo tax waykatam ba tàggkatam ba bu sayri rahimahullah waxoon ca burda nabiyuna al amiru naahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala naani sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi nga xam ne ak dundam lépp amir la day digle yiw dundam yépp naahi la day tere ab safaan la muy digleeg la muy tere amul ku ko a dëgg te la muy jàpp waxee ne maa ngi koy teg place am sallallahu alayhi wa waaye na mu waxee ne yàlla moo ne alladina yattabiuna arrasula annabiya al ummiya alladi yajidunahu maktuban indahum fi tawraati wal injil yonent la boo xam ne mbooleem melokaan yi dajee ci ab yonent léppan ci moom wa ziyaada yàlla dooli ko def ko muy sangu yonent yëpp gis yëmu tewaay mooy sangu bindéef yëpp ña jàngoon téere yu njëkk yi fekkoon nañ ca seen téere tawraat ak indiil ay melokaanam yàlla joxe joxe ko wax ko ba mu leer naññ bokk ci melokaan yooyu ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhaahum anil munkar daf leen di digal lu baax di leen tere ab safaan di leen daganalal tayyibaat yi di xaraamal ñoom xabaayis yi di leen teg ci yoon woo xam ne moo leen di tàqaleeg bàkkaar moo leen di woyofal diis diisi bàkkaar waaye ca buntu aaya ba mu ne falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabacu nuura alladi unzila maahu ulaika hum muflixuun sadaqa allahu alazim ni nga xam ne gëm nañ ko wuy fi ab woote te gëmuñ rek ne gëm naa toog jàpp seen bopp waaye dañ cee boole di ko dimbale di tasaare ab wooteem di jàngale am jàngaleem di jottali kàddoom di liggéey la daan liggéey te mooy ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar ne moom la yàlla karim borom bi nee na ñi def loolu ñi ko gëm dimbale ko ci anam googu ñooñu ñooy way texe aaya boobu doyoon nañu sëkk ñu xam ne al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar farata la ci ab jullit farata la ci ab jullit rawatina bu charte dajee ci moom te danañ ci ñëw waaye yàlla gën a fedd li loolu joxe ndigal li ne wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr na am ci yéen am na lim laaj ndax doomu aadama yàlla da wàccee ci kaw suuf bokk ci lim ko sax na dundal suuf moo tax mu war a jàngi lu ne war a xam lu ne war a wuti lu ne war a jéem lu ne ak lu mu bëgg a lu mu bëgg a ak lu mu bëgg am borom bi nee na jamono bu nekk na am ci biir jullit ñi na am ci xeet bi kuréel boo xam ne mbooloo boo xam ne seen yitte ak seen liggéey mooy al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar gis nga ni mu leen tuddee yad'uuna ila al xayr xayru mooy lan mooy ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar waxaat la mu waxoon te mooy digleen ak te aña wa ulaa'ika humul muflixuun yàlla joxoñ xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas xeet yi mas a jaar ci kaw suuf bari na waaye yéen yéenay xeet mu mas a génn ci suuf rek yéenay xeet mu ñu ko gën te ngëneel loolu la leen koy may mooy ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar loolu ab charte la boo demee ci tafsiru al-Qurtubi rahimahullah day wax ne ta'muruuna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah ci aaya bii mooy charte bii tax ñu am xayriya gi nga xam ne moom la yàlla di joxañee xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu fàtte bu ñu fàtte ne xeet ya jiitu woon wàcc yoon am na ci ñu yàlla ŋàññi am na ci ñu yàlla mere ngir lan kaanu laa yanahawna an munkarin faalu dañ daan def ab safaan te kenn du leen ko tere ku dul tere safaan doo digle lu baax kon dañoo nee na doon mabdawul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yàlla jéppi leen alquran wàcc ngàññ leen rëbb leen ci loolu moo tax ko kut yi di wax ne hadihi l ayatu madxun li ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aaya bi aw tagg la ci xeetu yonent yàlla muhammad waaye lu war a tagg bi ak lu leen ko may li annaha taamuru bil maarufi wa tanha anil munkar kon feeg ñi ngi jëfee ndigal loolu feeg ñi ngi liggéey liggéey boobu dañuy am xayriya muy ngëneel li nga xam ne yàlla jox na leen ko ci kaw yeneen xeet yëpp waaye bés buñ bàyyee ndigal loolu jëfeewuñu ko xayriya boobu day ànd ak moom dañ ndax moo doon sart bi beneen aaya alquran borom bi di melal ni gëm yàlla moo xam ay góor lañ wala ay jigéen lañ di leen dig gannaaw ba melalee joxe seen melokaan dig leen ne ñoom lay yërëm ëllëg yow yërmande yàlla ñoo tey njëkk ñoo tey mujj yàlla wax na ci xadis qudsi ne sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande jiitu na sama mer wax ci alquran wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande lépp xaj na ci biir ñëpp xaj nañ ci biir waaye ndax ñëpp laa koy jox bu ëllëgee déedéet fa saxatubuha lilladina yattaquun tënk na ñu muy jox yërmande mooy ñi nga xam dañoo am taqwa yërmande jooju nag alquran wax nañu ne képp ku boo bëgg yàlla boole la ci ñi muy yërëm da nga jikkoo al amru bil ak wa nahyu anil digle lu baax di tere ab safar والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم kon bëri na lool lool ci alquraanul karim ay soññe jullit bi ak di joxañ xeetu lislaam di farataal ci ñoom ñuy digalante lu baax di terewante ab safar waaye noonu mel ni alquran it la mel ci sunna si yonante bi mooy gëstu ci sunna yonante bi wala siira yonante bi ak dundal loo ciy jàng ay waxam da fekk mu fees dal ak amru bil maaruf ak nahyu anil munkar danañu doy bu ñu demee ci saxiixul buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne jullit bi jullit bi sarax dafa war di génn ci moom bët bu ala kulli muslimin sadaqa jullit bu ne rek daa war di saraxe lu mënta ñàkk la saxaaba yi laaj na lool bu amul mu saraxe nag mu ne fa yaamalu bi yadayhi fa yanfaqu nafsahu a yatasaddaq na dem liggéey na liggéey liggéey bu liggéeyee am la mu am mu jariñ ci saraa ci ngir yàlla ñu ne ko fa in lam yastati bu mënul liggéey ki am ngànt mën na liggéey mën na wuti lu muy def mu ne fa yu'inu dal xaajatil malhuuf ku am soxla aajowoo dimbale mu dimbale ko ngir yàlla gaa ñu ne ko fa in lam yafal bu deful loolu nag mu ne fa yaamuru bil xayr na digle lu baax moo tax saa boo diglee lu baax rek am nga tiyaabay sarax boo teree ab safaan kadalika mel na ni saraxal nga loolu di soññee bu rëy ci képp koo xam ne bëgg na aw yiw ndax xam nañ sarax li dina ci ngëneel ak tiyaaba jullit ñépp yitti woo moo tax as salafu tàmbalee ci saxaaba ya ridwanullahi alayhim ak ñu seen ginnaaw ba jantu tey tey góorgóorlu ci yoonu njub dafa bokk ci seen liggéey di yëkkati kàddu dëgg saa bu di digle lu baax fu ñu ko war a diglee di tere ab safaan ca nañ ko mënee saa buñ ko gisee ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon waral ci ñoom ne képp koo xam ne gis nga ab safaan taxawal ci na dañ dindi ko ak sa loxo boo ko mënul ci sa làmmiñ boo mënul ci sa xol bu fekkee ne gis nga ab safaan te amoo ci dara la métti ci sa xol lott nga ci dañal ko sa làmmiñ sa loxo mënul ca dara lu toll ni pepp suuf defee doo ko yow ci gëm yàlla la gën a néew gën a doyali gën a ñàkk solo ci gëm yàlla mooy boo digal sabaan te mënoo koo dajal amoo pexe moo ko dindee amoo làmmiñ woo ca waxee ba mu daj nga méttitul ko naqar lu ko ci sa loolu xadis la boo xam ne qaada bu rëy la ci diine danañ ci ñëwaat euh, benn sikki sàkk ne al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar te mooy di digle lu baax di jàngale lu baax di woote demee ci lu baax di wattikuloo ak safaan ak di ko aaye ki ci nekk nga laajul ko génnee ko ci bu dee koo yilif war war ko tey génnee nga taxaw ci mu bàyyi ko loolu xaaj la boo xam kenn mënu koo tàqale kenn mënu koo ber ci diine ji dafa bokk ci jëmmi diine bu diine doon jëmm du taxaw ci yaram bi la bokk kenn mënu ko caa dindi defe naa leer na ci aaya yooyu waaye ci xadis boobu te dañuy tënk waaye bëri na lool lool ci alquran aaya yi wax ci bunt bi bëri na ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ay xadis yi wax ci bunt boobu mu des nag ñu war a xam ndax euh, kan mooy saña digle ak di tere ana kan la sharia teg ci gàtt loosam warteefu digle lu baax ak tere ab safaan ndax jëf joo xam ne rawat na ak jaamu yàlla la alquran da cee soññee lislaam bi diine ju mat joo xam ne lépp rek day tegu fa mu war a tegu moo tax lu yàlla fartaal ci jullit ñi mu war a am charte ñuy dajee ngir loola mat faw ñu xam charte yooyu ba mu leer shurutul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar maanaam kii digle lu baax di tere ab safaan yan sàrt ñoo war a dajee ci moom ba mu mën liggéey boobu du jar ñuy sori bu ñu ubbee al jawaru nafiis danañ fekk Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu jàngale ko ba mu leer ci muqaddimaat téere bi fa muy waxee wa an yakuna amiran bi rushdi wa naahiyan li mushatin an diddi gannaaw ba mu tàmbalee ca awwalu maa awjabahu rahmaanu qatan ala almukallafi alimaan jullit bi dund ba mat mukallaf li njëkk doon farata li yàlla njëkk waral ci moom mooy imaan na na na wéralaat ak gëm yàlla na yeesal ak gëm yàlla laabal pas-pasam ci lépp loo xam ne bokkaale yàlla la laabal pas-pasam ci lépp loo xam ne njuumte la ci pas-pas am gëm yàlla bu set bu mat ginnaaw loolu ya ca topp indi ko lu mel ni laaj ak i atteem attey julleeg woor ak yooyu nga xam ne ay furuudul la faw mu jàng ba xàmmee ko ràññee ko man koo def ci nañ ko koo digale di lim yi yàlla waral ci mukallaf ba yegg si ci wa an yakuna amiran bi rushdi wa naahiyan li nushhatin an diddi bokk na ci farata yi bokk na ci yi yàlla waral ci mukallaf nay digle lu baax nay digle ak njub di tere ab safaan loolu dafay def ngir di laajurante ak mbokki jullitam di dénkanteeg ay mbokki jullitam dëgg bu ñu fàtt ne yàlla waxoon nañu ci alxuraan ne doomu aadama yi ci perte lañ nekk ba mu des rek benn kuréel te mooy ñi gëm yàlla di def lu baax yemunte waaye ñi ngay dénkante ak dëgg ñi ngay laajoo wante di waxante dëgg ngir yàlla di dénkante ak moom kon loolu farata la lu mënta ñàkk la euh, jullit bi di digle lu baax di tere ab safaan lakinnahu lahu waaye digle lu baax li muy baax baax tere safaan li muy baax baax am na ñetti charte yoo xam ne mooy dajee ci kii diglee ka tere comme ni ko charixul axbar yi indee téere bu ñuy wax umdatul bayaan umdatul bayaan fii maarifati furudil ayaan ñenn ñuy bind fii maarifati furudil ayaan benn borom xam-xam bu dëkkoon Andalus ca Xartaba moo ko bindoon charbu matnul axdar yi bii nga xam ne moom la sëriñ bi way tuddee ko al jawharu nafis sëriñ bi sukkandiku na ci kooku dellu na ci moom lu bari ci ni mu wayee al nafis moo tax mu ne digle ak tere am na ñetti charte anaytu fi ljawaazi wal wujubi fa haaka addaha ala tartibi nit ñi dañoo doon ay xaaj xad alima kullu unaasin mashrabahum kenn ku nekk fa ko yàlla teg foofa la yàlla di waxee ak moom foofa la di waxee ak moom am na ñoo xam ne digle ak tere waajib la lu mënta ñàkk lu war la ci ñoom am na ñoo xam ne lu dagal la rek ci ñoom buñ ko mënee def def ko moo gën buñ ko deful du tax ñu leen da a bàyyi lu leen moo tax mu ne alaykum fil wal wujuubi فهذا عدها على الترتيب ñetti charte yi seen biir ni nag du dàqwante da nga jàng keneen di lim surutul amri bil maaruf wa nahyi anil munkar tudd ci juróom wala juróom-benn wala sax fukk waaye boo seetloo da ngay fekk ne yëpp yi indi nu mën a togg rek lépp day dugg ci biir ñett yi lépp day dugg ci biir ñett yi ñuy bëgg a wax. bi ci nekk mooy ay an yakuna aaliman bil munkari wa laysa mufdiyan li charrin akbari wa an yakuna qadiran dul amri ala al izalati bi gayri nukri ci ñaari bay bii tënk na charte yëpp bu njëkk bi an yakuna aaliman bil munkari mooy na xam ràññe xam nga ne jullit bi mbooleem jëf yi ko diineem sant mu war koo jëf ci kaw suuf la ci njëkk mooy nay jàng xam ràññee kii xamul ki nekk ci kàmbi réer benn farata moo tegu ci kawam mooy na daw génn ci réer boobu na na na jéem a xam na jàng na laaj na roy ci way xame kon a kenn di digle lu baax wala ngay tere ab safaan na fekk yow ràññee nga xam nga lan mooy ak baax xam nga lan mooy ab safaan loolu nag faw ñu taxaw foofu ndax ku ne xam na ne am na ci diine loo xam ne jërul jàng ñi jàng ñi jàngul ñëpp xam nañ ne julli farata la julli ñi dañoo war a julli ñëpp xam nañ ne woor farata la ci ku amul ngànt ñëpp xam nañ wax lu dëgg lu bon la lu xaraam la naan am ñoll lu xaraam la jëw lu xaraam la yooyu nga xam ne ay daruriyaat la ñi jàngal ñi jàngul ñëpp xam nañ ko ràññe nañ ko jullit ñëpp am nañ sañ-sañ bi ci laabirante te yàlla tax xam ne farata la wala yiw la wu rëy ci moom nga digal ko laabire ko loola lu baax koo gis mu nekk ci safaan nga mën koo laabire bàyyi loo ko ko safaan mu fes yooyu nga xam ne même boo jàngul xam nga ne lii safaan la baaxul nga laabire ko bàyyi loo ko safaan boobu kon bu ñuy wax kiy diglee te tere na doon ko xam dafa am ci diine yeneen masala yoo xam ne yu yu yu xóot la yu sew la yoo xam ne ñi jàng ràññee rek ñoo ca lu leer kon yu mel noonu euh, pour nga digal wala nga tere ca kenn nga mooy jàng ba xàmmee loolu tax mu ay an yakuna aaliman bil munkari ndax boo ko xàmmeewul boo ràññeewul mën naa am yaa ngi digle dara jàpp ne lu baax la te fekk ab safaan la mën naa am yaa ngi digle eh, fekk la ngay digle safaan la wala yaa ngi tere te fekk la ngay tere aw yiw la te bu mu ci ñaar yooyu rek musiba la moo xam ne lu mat a wat ndiku la moo tax li jiitu te war a jiitu jamono ju ne mooy jàng ku ne xam na ne lislaam diine yi jàng la diine la joo xam ne keroog ba yàlla di yebal sayiduna jibril alayhi salaam muy wàcce alquranul karim ci sayiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam lam ko njëkk njëkk wax mooy iqra loolu ndigal la loo xam ne jullit bi ndigal li la sa diine njëkk jox mooy iqra jàngal kon yow miy diglee ka tere faw nga jàng xàmme ba la ngay digle yépp doon lu ñu war a digle la ngay tere doon lu ñu war a tere waaye nga digle tere ci anam goo xam ne day dëppoog ni ko lislaam bëggee mu tegu ci xikma walaysa mufdiyan li charrin akbari walaysa mufdiyan li ak bari maanaam yow mii digle te sa digle gi day yokku joote dana tax kii ngay digal lan doon defa ko néew boo ko digalee sax mu far ko bàyyi wala safaan bi mu nekk nga bëgg ko koo tere boo ko ko teree dana ca gën a xër gën koo mën a def bu boobaa dangay ngay maandu xam na yow li nga bëgg mooy aw yiw nga ko yéene na góor góorlu ci mbaax na bàyyi ak mbon waaye boo ca àddoo rek yaa xam dangaa ngaa digle loola day wàññi mbaax ga da tere day yokk safaan ba kon day war ci yow nga noppi te xam ne kooku amoo benn sañ-sañ di ko digal wala nga di ko tere dara ndax danga koy yokk musiba moo tax mu ne walaysa mufdiyan li charrin akbari wa an yakuna qaadiran bokk na ci charte yi waaye charte bi ñuy wax day dellu ci kilifa gi nga xam ne dañ koo dénk ak kilifteef mën naa am mooy amirul muminin mooy yilif jullit ñi mën naa am mooy njiitu réew mi wala mooy njiitu dëkk bi wala mooy njiitu mbooloo mi wala mooy borom kër gi moo yilif ki muy digal kooku la yonente bi waxoon ne man ko minkum munkaran fal yuxayyiruhu bi yadi ndax lii xew di ab safaan ci sa suuf kilifteef lay xewee yow lañ jox doole jeeg baat bi dangaa war a taxaw ci mu dañ boo ko defee def nga li la war boo ko deful bàyyi nga li la war wa an yakuna qadiran dul amri ala izalati bi gayri nuqri ki nga xam ne nag amul baat boobu ak man-man boobu lim yor rek mooy ay laabiram waxtaan ak leeral ak yeete loola mooy doon farataam farata ju tol ni ja tegu woon ci kilifa gi nga xam ne am na kàttan ak man manu dindi kon li am solo rek mooy nga xam yow sa wàccuwaay bu dee sa wàccuwaay mooy na mbir mi dañ kenn mënu ci dara dafay dañ loola day war ci yow waaye yeggoo foofa sa wàccuwaay mooy laabire nga man wax nga man jàngale nga man yeete nga man leeral nga man loola mooy sa farata nga def ki nga xam ne nag lott na ci ñaar yooyu yëpp desewul lu dul rek la muy gis dib safaan wala muy yiw woo xam ne nit ñi waroon nañ ko def defuñu ko loola lam ca man mooy di ko di ko di ko métit lu ci xolam di ko métit lu ci xolam te loolu nag booy mu sàmm ko bu baax a baax faxee bañ lu bon ba bu ko gisee te mënut ci dara it na ko métti ndax loola mooy la gën a néew ci gëm yàlla bés bu ko rëccee muy gis ab safaan te sax ne lib safaan la naqariwut ko la muy tekki mooy ak gëm yàlla nekkatul ci xolam daraay gëm yàlla deseetu ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mu ñëwaat ba tey ñu ngi ci aljawharu nafis wa sharatu idna imaamin fiihi ma al bila tamwihi bokk na ci charte amru bil maaruf wa nahyu anil munkar gannaaw ñett yi léegi nga xam ne moom dañ cee juboo isnul imaam imaam mooy njiitu réew mi wala njiitu jullit ñi xam ngeen ne ca njëlbeenu lislaam booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul woon frontière ci kaw suuf fu ab jullit nekk rek mooy sa kilifa moom ngay déglu ay ndigalam moom ngay déglu ay njàngaleem moom ngay jéem a xam ay teram di ko wat ndiku naka noonu bi fi yonent bi bàyyeekoo njëlbeenu lislaam loolu moo continué kon bu ñu waxee ismul imam mooy ndigal lu bàyyeekoo ci amirul muminin kilifa gi yilif jullit ñi bi jamono doxee nag ba dawla islaamiya taxawatul waaye alhamdulilahi rabbil alamin fu fi ay jullit nekk ci kaw suuf rek ñàkkul ña ngay ña nosu am kilifa yoo xam ne ñoom lañ teg ci seen kanam ñu wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jotaayam mbooloo yooyu nag nga xam ne ay jullit lañ di dund ci lislaam nose seen mbir am kilifa dafa am lu ñu tuddee nizaamul xisba muy lu xewoon ci taarixu lislaam waaye loo xam ne ak njëlbeenam mën nañoo wax ne ci dundug yonent bi sallallahu alayhi wa la commencé woon a feeñ loolu bu amee balaa kenn jël digleeg tere def ko muy métteem nga xam ne moom liggéeyam yëpp mooy di digal nit ñi lu baax di leen tere ab safaan ku day doon ku am ndigal ci imaam bi nga xam ne mooy njiitu jullit bi looloo tax muy wax ne wa sharatu idna imaamin fii nizaamul xisba wala ixtisaab te ki ko daan def ñu koy woowee muxtasib ay nit lañ doon doon ñoo xam ne ñoom amuñu xëy wala gont baneen dul buñ xëyee ña nga ca mbedd ya ña nga ca marché ya ña nga ca garam place ya ña ngay fekk jullit ñi ci seen biir kër di leen laabire kuñ gis ngay def ab safaan ñu yedd la wat ndiku loola waar la kuñ gis ngay neenal ak di sàgganee lu baax ñu fàttali la woola ca lu baax digal la ko loolu ku ne xam na ne Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loolu liggéeyam la woon moo ko yóbbee woon guddi bu nit ñi nelaw mu jóg di dox ci mbedd yi fu mu gisee ab safaan man a jàjj ña koy def man leen a delloo ci yoon ginnaaw gi ci dawlaat islaamiya yi taxaw euh, demoon na ba nekk loo xam ne ab liggéey la liggéey la boo xam dafa am ñu koy féetale seen liggéey yëpp mooy dem ci marché yi di xool jaaykat yi ndax nañuy jëflante ak ñay jënd lépp ngi dëppoog lislaam ndax naxante amul ci jëflante yi ñii génn ak topp di def lu lislaam tere lu mel ni di naan sàngara yu ni mel ñu leen di seet ak di leen di leen di leen laabire di leen jàjji kuñ ci war a teg ay daan ñu yóbbu la ca àttikat ba wala ka méngoo teg daan ya mu teg la daan ya nga méngool ya nga yeyoo loolu nag féeg mi ngi am balaa kenn bokk ci nizaam boobu di jëf-jëf jooju da ngay am ndigalul ki nga xam ne mooy kilifa gi maal adaalati adaala mooy maandu maanaam li ngay digle na fekk yaa ngi ci jiitu la ngay tere it na fekk yow bàyyi nga ko waaye lislaam nanguwul kuy daawa kuy woote jëmee ci lislaam ci anamuk njub gaa nga nële dem lent mbaaxa nga nële dem lent ak mbon a ngi nii maa ngi ci toog maa ngi lap ci géeju mbon waaye yéen sor leen ko bu leen ko laal déedéet lislaam nanguwul lool njub gaa ngi nii ñëw leen danga ciy jiitu ab safaana nga nële man dama koy daw nañu ànd daw loolu mooy adaala boo ko deful di digal nit ñi loo jëfewul di leen tere loo bàyyiwul kàddu yàlla mooy dal ci sa kaw atamuruna naasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqiluun naka ngeen di digalee nit ñi lu baax naka ngeen di digalee nit ñi topp yàlla naka ngeen di wooyee nit ñi jëmee leen ci aw yiw ba noppi fàtt seen bopp mel ni sondeel bi nga xam ne mi ngi leeralal nit ñi waaye mi ngi lakk boppam loolu amul solo kon euh, charte la ci kii diglee ka tere mu am àddulu maanaam mu doon ku maandu balaa kàddu yàlla googu di atamuruna naasa bil birri di dal ci kawam waaye balaa kàddu yàlla lima taquluuna maa laa tafaaluun di dal ci kawam kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun loolu tax mu ne washaratu idna imaamin fiihi maa al adalati bila tamwihi wa qiila inna zeyni lam yakuna chartayni fi l amri daci taamina waaye ñaari charte yi xayru muttafaqin alayhima dëppoowuñ ci am na ñu wax ne ñaar yi doonuñu chart bu dee bu njëkk bi ndigalul ilimaan moom lii mbir tey mbir mooy du charte rawat na ci suñ jamono jii nga xam ne ni jullit ñu organisé woon liggéey bu ne am ñu ko féetewoo loolu amatul daanaka kenn ku nekk yaay góorgóorlu ci sa góorgóorlu bopp booy dund ci réew yu mel ni suñu réew yi nga xam ne daanaka diine yitteelut leen ci niñ ngànkee réew meeg niñ koy doxalee jullit bu ne yaay am sag mat yaay am tawfiq yàlla mën a tënk sa bopp ci ndigal yàlla yi di daw loo xam ne ab safaan la koo mën a laabire ci say mbokki jullit nga laabire ko ngir yàlla kem sa kàttan waaye jërul déglu ndigalul imaam allahuma illa lu dul mbooloo moo xam nag ñoom nosu nañ ba keleen jiite mooy tànn ñay féetewoo loola kenn du sañ dugg ca loola di tànn sa bopp boo ko bëggee def da ngay jaar fa nga war a jaar ba bokk ci ñeñ féetale loola kon waqila inna zeyni lam yakuna chartayni fi amri am na ñu wax ne ñaar yi mu mujj wax mooy isnul imam ak adala bokkuñ ci charte yi dai taamina da taamina ah, sëriñ bi continué di leeral ci charte yi ba tey muy shurutul amri bi maaruf wan nahyi anil munkar ni ñu ko waxee ñu ngi ci téere bii di al jawharu nafis ah, sëriñ bi way matnul axdar yi muy téere bu ñu xam waaye sukkandikoo charxu bu ñuy wax umdatul bayaan fi maarifati furudil ayaan mu wax ne wa jaa aydan chartu kawnil munkari fi zahirin min duuni tajsiisin duri wala istiraaqi samci wa stinchaaqi raaihatin ka fili di nifaaqi nee na bokk na ci charte al amru bil maarufi wa nahyu an il ka nekk cib safaan nga di ko tere na doon koo xam ne la muy def muy ab safaan lu feeñ la doonut lu muy nëbbu jullit bi la muy def te di ca làqu loola diggante mook yàlla ak diggante mook yàlla boroomam la yow mi nga xam ne nag jullit bii def lii safaan di ko nëbbu waaye jullit bii ci sa suuf kilifteef la nekk sab donga la sab la wala sa doom la wala sa soxna la sa njaboot la goo xam ne yow yaa ko yilif am nga sañ di ko laabire di ko yedd ak di ko bàyyi lool muy def donte mu koy nëbbu waaye jullit bi nga xam ne nag lislaam moo leen boole wala ak dëkkandoo leen boole la muy def doonte safaan la ma ngi koy nëbbu bëggul kenn ku ko xam boo ko mënee laabire day waxtaan ak moom waar ko ba loo ko ko alhamdulilahi rabbil alamin waaye du dagan mukk na ngay ngay ngay wax ak moom di dugg ci loo xam ne da koy nëbbu bëggul sax nga xam ko di ko ko tuddal rawat na nga di ko ko tuddal ca mbedd ma mel ni danga koo jubloo weer loolu lislaam da koy tere alquran moo ñu jàngaloon ne wala tajassasu bu kenn def ay pexe di jéem a dégloo ko xool ak di jéem a xam ci ay mbokki jullitam loo xam ne dañ koy nëbb moo tax mu ne wajaa aydan chartu kawnil munkari fi zahirin min duni tajsiisin duri am na ku dox ba dugg cib néeg fekk mbooloo mu toog yor seen xob yooyu di kart mu taxaw xool leen ne leen innama alxamru yaa ayuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min amali sheytaani fajtanibu laallakum tuflixuun kenn ci mbooloo mi doon def safaan boobu ne ko yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dalikum xayrun lakum laallakum tadakkaruun moom ah, lim def dëgg la am na solo fekk na ñu ne ci safaan mu laabire leen waaye liñ ko tontu yi tontu bu am solo la ndax bu jaaroon fa mu war a jaar jëfee li ko lislaam sant du fekk ñooña di def loola am nañ ci moom kerte gu toll ni bu taxawoon na yoo wala mu yëglu ñu nëbbu la ñuy def kon loolu lu mat a bàyyi xel la dama bëgg digle lu baax dama te bëgg a tere ab safaan wërta tax nga jàppe sa bopp malaaka wërta tax nga am sañ-sañ ci nit ñi lañuy ñuy nëbbëg la ñuy def te seen diggante yàlla rek la yitteel nga di ko jéem a xam ak di ko jéem a génnee ci biti moo tax loolu lay wat ndikuloo ne wa jaa aydan chartu kawnil munkari fi zahirin min duni tajsisin duri wala istiraaqi sam'i wa istinshaqi raihatin ka fili di nifaq moom la kon ne di wax walam yajus baxsun an alladi iktatam fi sawbihi aw fi bukaanihi naam aw fi yadayhi aw bi daarihi maa bal kullu da kaana xaraaman munia sëriñ bi radiallahu anhu di wax ne daganul ci ab jullit ngay tajassus say mbokki jullit di jéem a xam la ñuy nëbbu di sàcc déglu lañuy wax ak di xeeñtu xet boo xam ne ab safaan la ci ñoom wala la ñuy nëbbu moo xam seen biir yére wala seeni kër wala seen barab lu mu mën a doon ña ngi koy nëbbu loola bàyyi leen ak yàlla bàyyi leen ak yàlla du tee nag boo leen mën a laabire bil xikma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na lu daan defee muy lu am solo kuy def ab safaan di ko nëbbu mu yëg ko ba mbooloo ma dagee mu ne maa baalu qawmin yafaluna kaza wa kaza lu tax am ñuy def nangam te mën naa ma amul sax mën naa xam na ña def mënoon a tudd seen tur waaye day wax rek bu bi yeete kàddu bu jàngale boo xam ne day jëm ci mbooloo mi yépp moom mi doon def dara dana xam ne moom mii moo tax yonent di wax lépp nag ci sutura lépp ci sutura keneen ku yëgul woon mën naa xam dara kon jullit buy def safaan di ko nëbbu loolu nga am sañ-sañ ci moom boo ko mënee laabire ci anam boobu alhamdulilahi rabbil alamin lii ñuy wax it du dàquwaatee waxoon naa ko koo xam ne ci sa kilifteef la nekk nga am warteefu war koo yara war koo jubbanti rawat na dong yi nekk ci daara bëgg di def ab safaan di ko nëbbu nga ne sama yoon nekku ñu kon ma ngay kon ci mbiram danga koo war a xam ngir mën koo teg ci yoon ngir man koo dimbale teg ko ci yoon mi ñu gërëm mu ne wax la bi anna al amra wan nahya jalaa baynahuma talaazum ta'ammala fa man nahaa an ay shay'in qad jaraa fa innahu bi aksihi qad amara sëriñ bi radiyallahu anhu wax ne yow mii jàng xamal yëgal ne al amru wan nahyu maanaam al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dañoo taqoo ndax liy mbir tey mbir mooy lépp loo digle tere nga safaan waaye lépp loo tere digle nga safaan ba loo fi digle rek yaa ngay tere ab safaanam loo fi loolu way jàng usul borom xamante dañu wuti ci tomb boobu waaye li gën a gën mooy loolu ndigal lu rek tere safaanam la tere gu ne digle sabaanam la moom la fedd ne fa man naha an ay shay'in qad jara fa innahu bi aqlihi qad amara kon ci gàttal balaa ngay soobu ci liggéeyum al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar ak li muy am am solo ak li muy war war war nga bàyyi xel ne am na charte yi daje charia door koo sant ci yow door koo gërëm ci yow la mooy xam ràññee xam gi moo lay dimbalee lépp looy tere rek lu ñu war a tere la looy digle nit war a digle la waaye moo lay dimbalee la ngay tere yaa ngi koy tere kenn nam ko war a tere di ko def ci xikma di ko def ca waxtu ya nga war a tere ca na nga war a tere bu dee ndigal na nga war a digle digale nga am njariñ xam moo lay dimbali ci loolu nga bàyyi nag beneen charte bi mooy digle tere li muy baax baax waxuñ la nga ne lii farata la wala naa ko def rek ñu bindal ma tiyaaba doonte wóor na ma koy digal ci jariñ ko jëfe doonte wóor na ma ne bu ma teree li tere moom du am benn njariñ waaye naa tere rek déedéet kii diglee nga tere dafa war a ànd ak yéene war a ànd ak doomu fas yéene jariñ ci muy digal ak ku muy tere te yàlla tax kon bu la leeree ne sa ndigal lii day tax borom gën a sàggat sa tere yii day tax mu gën a farlu cib safaan téyel sa làmmiñ téyel sa bopp dootul dagal mukk ngay ngay ngay digle ci anam boobu wala ngay tere ci anam boobu nga xam ne wóor na ne ndigal lii wala tere li du jariñ bal safaan bi dafay lor beneen ba gannaaw bu xam gi ak ràññee gi jiitoo terageen ndigal li du yokk ab safaan beneen bi mooy nga xam yow yaay kan ci biir xaaj yi nga xam ne moom la yàlla xaaj ay jàmm yow mi yàlla yilif loo ak sa kilifteef nu mu man a toll mën naa am lu yilif nga toll ni am réew wala yilif nga du toll ni ab dëkk wala mbooloo yoo xam ne sax ëpp na ay dëkk wala nga yilif benn kër yow ak sa waa kër nga yilif wala kër gi sax yow yilifoo lépp tuuti nga fi yilif yow daal xamal li la war la ne ci sa kilifteef la la te ci ay digal la la te war ci ay tere nga taxawee ko ba mu mat boo ko defee sa jaan wàcc boo ko deful sa diggante ak yàlla subhanahu wa la nit mën naa ne ci àdduna di góorgóorlu ci ndigali yàlla di fàggu yiw yu bari di daw ab safaan kenn kàttanam waaye lépp mu yemale ko ci jëmmi boppam ëllëg yowmal qiyaam mu yaakaar ne war na faa mën a am ak texe ngir ay jëfam ngir bi ñu doon góorgóorlu ndeke ma nga bokk ca ñu alquran doon wax naan innahu fi ahlihi masuura koo xam ne lu waa këram def rek neex na ko lu sedd seen xol sedd na xolam doonte ab safaan la loolu baaxul kon euh, nga xam yow li la yàlla yilifloo nga jëfee ndigalul yàlla ci ñoom mooy di leen digal lu baax di leen tere ab safaat te lépp dëppoo ak xikma ni ko yonent bi waxee ci xadis bu wér ne ñu kenn ku ci ku mu ci rek ab sàmm la lam yilif ëllëg bés a ngi ñëw yàlla laaj ko naka la sàmmee loola mu yilifoon yow bi yiliful kenn yilifoo dara sax lu mu bon bon sàmm nga ci sa juróom-ñaari cër ëllëg yow nga xëy am suñu borom dana la laaj sa cër yi naka nga leen sàmmee woon. ndax da ngaa booyaloon say jëf say tànk fu la neex dem bët yi lu la neex xool nopp yi la neex dégg làmmiñ yi lu la neex wax wala doon nga sàmm say cër di leen téye te xam na am na yoo daf la koo tere kon ñu ñëw ci wasaayil yi maanaam ki nga xam ne mooy digle lu baax di tere ab safaan ak wàccuwaay bu mën a am nag moo xam kii diglee ka tere ci kàttanam ci ñaari loxoom wala ki nga xam ne da koy def ci làmmiñam ndax loolu mooy tolluwaayam koy def ci ab xolam ndax loolu mooy tolluwaayam jumtukaay yiy dimbale ci digal tere ay jumtukaay yu bari la waaye la ca jiitu la ca jiitu te jiitu te mooy di muñ gis nga yàlla bi ñu wax ci sóoratul asr di wax ne doomu aadama yépp dañoo pet ba mu def ñuy gëm yàlla di jëf-jëf yu baax di dénkante dëgg di dénkante dëgg mooy di digle lu baax di tere lu bon lu mu ca teg wa bi sabr ndax loolu dafa ànd ak ay jafe-jafe dafa ànd ak ay mbir yu baree bari yoo xam ne boo mënta muñ boo mënta muñ doo ca sori kon doon ak muñkat alquran soññee na lool ci muñ loolu jullit ñëpp xam nañ ko beneen bi mooy nga gànnaayoo yóbbaloo yóbbal bu doy ci xam ak ci xikma ba mbir mu ne rek di tegu palaasam wax jooy wax doon wax joo xam ne eh, wax nga ko te barab ba nga ko war a waxee na nga ko war a waxee ndax wax ja jariñ jëf yi it kazalika loolu mooy xikma kon bokk na ci ah, jumtukaay yi lay dimbale yenn yi ay melokaan la yoo xam ne ci sa jëmm yow mii diglee ko tere lay nekk mooy muñ boobu mooy gànnaayoo xam-xam bu leer comme niñ ko waxee woon ah, li ngay digle xam nga ko xam nga ne luñ war a digle la li ngay tere xam nga ne luñ war a tere la waaye xam nga naka ngay diglee ak naka ngay tere ba loo ngay def am taasir mën a jariñ dara ca ña ngay jëflante yàlla day wax ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqqahu fi ddin wa li yundiru qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdarun lu tee kuréel bu ne lu tee kër bu ne rek kër bu ne lu tee ñu am ñun génnee ci seenu njaboot ñu jàngi diine waxuma jàng ngir xam fardu ayni loolu jullit ñëpp la war jullit yëpp yëpp ñoo war a jàng jéem a xam seen furuudul ayn waaye njaboot bu ne rek na am ñu ca jàngi ba xóotal seenu njàng te ñooñu bu ñu amee xam-xam bu yaatu ci diine bu leer bu wér mën a dimbalante ak seeni nit mën a dimbalante ak seeni mbokk di leen fàttali di leen yee ak di leen jubbanti di leen jàngal kañ lañuy def loolu ki jàngoon war a ñëwaat di dimbalante rek ay mbokkam ca lam jàngoon ida rajahu ilayhim ida rajahu ilayhim yëmul ci jàng nañ ba ñibbisi waaye nañ dellu ci waat nit ñi am yëg-yëgu ne ñoom kenn lañ ci nit ñi war a ànd ak nit ñi di laajurante ñoom te yàlla tax bokk na ci jumtukaay yooyu nga xam ne dana dimbale ci al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar ah, ay jumtukaay yoo xam ne day génn jëm bi di digle day génn xam ne moom mooy féete woo di diglee ka tere waaye yenn moyens yoo xam ne da koo soxla ngir mën a jàllale message am bokk na ci lu néegu yàlla mel ni jàng wala jumaa jumtukaay la bu mag boo xam ne lislaam amul jumtukaay bu gën a rëy ci boole bay mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne jàkkaam ja moo doon léppi jullit ñi lépp lu yitteel jullit ñi rek buñ bëggee jàng buñ bëggee àtte buñ sa amee sax gan ñu amul fu fu ñu dal wala luñ xaw la ca jàkk ja lañ koy defaree moo tax bu ñu demee ba yaakaar ne jàkk moom mooy julleeg sëlmal rek jeex na la leen amu fa aw nañ ci yoonu rey jàkke yi dafa bokk ci lii dugal léegi yàlla subhanahu wa jotaay yu mel nii di fàttalante ak di laabirante ci diine kon jàkk yi ak jumaa yi rawatina xutba àjjuma yi jumtukaay la bu rëy ngànnaay lu diis loo xam ne yàlla teg na ko ci loxol ilimaan kilifa yi ñu mën a dimbaleel nit ñi ci leen digal lañ leen war a digal waaye di tere lañ leen war a tere di laabiranteeg ñoom di fàttalanteeg ñoom di yemanteeg ñoom ci diine bu dul jàkkee jumaa yi ak xutbaay ajuma yi yëpp ah, xew-xew yi rawat na xew-xew yi nga xam ne dañ koy xewal ci turu diine moo xam ay conférence yi ñuy woote la wala yeneen bés yoo xam ne ay xew-xewu diine la mbooloom jullit ma di dem ngir jëmmi yàlla ngir diine dëgg-dëgg xew-xew yooyu yëpp war nañ leen a tawfiif ci digal jullit ñi lañ leen war a digal tere leen lañ leen war a tere te liñ leen war a digal ñu leer la mooy jëleen yàlla subhanahu wa taala digal fàttali ndigal yàlla fàttali ndigal yonente bi sallallahu alayhi wa di leen wat ndikuloo di leen tere lépp loo xam ne kon loolu yi bokk na ci jumtukaay yi nga xam ne yi ñu war a jariñoo la waaye fii jamono tollu tey eh, jumtukaayu jokkoo yi jàppandi te yaatu lool daanaka nit ñëpp tënk ci seen bopp eh, kilifa yi ak ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy déglu ci ndigal yeeg tere yi fekk ci nit ñi ci jumtukaay yooyu di jonjante ñoom ci jumtukaay yooyu di digle saa bu ñu waree digle di tere saa bu ñu waree tere comme ni ko ñu di defee loolu lu mënta ñàkk la ndax jumtukaay la boo xam ne yàlla tàggat na ko muy lu sori mu jegeel la ko làmboo ay njëriñ yu yu bëri lool dafa bokk ci sant yàlla jëfandikoo xéewal yi mu la jox tàggatal la ko teg ko ci sa ñaari loxo kon loolu jumtukaay la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la bokk na ci jumtukaayu digle nga tere buñ kenn yaakaar ne digle mooy defal nangam rek tere mooy bàyyi nit ki léeg-léeg na muy comportoo jikkoom yëpp rek ña ko xam di jëflante moom dañuy mën a jariñu ci jikkoom jooju di ko roy kooku ci lisaanu xaalam doonte waxul ci lisaanu xaalam ma ngay digle lu baax ci lisaanu xaalam ma ngay tere ab safaan kon nit ki mën na di digle man di tere ab safaan ci na jëflantee ak nit ñi na muy dundee diine na muy góorgóorloo ci ndigal yi diine waaye na muy e, tere yi ak safaan yi kon bokk na ci jumtukaay yooyu li ñuy tuddee ad daawatu bi suluk nga xam ne ci sa jikko ci sa jëflante ak doomu aadama yi yaa ngi leen di xamemloo ak mbaax yaa ngi leen di woo jëme ci mbaax lépp nag ci jikko ju rafet waaye ci jëflante gu rafet doonte sa làmmiñ waxul bokk na ci wasaayil yi nga xam ne it war nañ koo bàyyi xel war koo dimbanikoo ngir mën a digleeg tere comme ni ko yàlla diglee ni ko yàlla farataalee mooy ñépp ñoo xam ne ak mbaax da leen yitteel teg nit ñi ci yoonu njub yitteel na leen génnee nit ñi ci ak réer ñuy dox ci xam-xam bu leer yitteel na leen ñuy jàppalante di dimbalante gis nga buñ delluwaatee ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ku gis ab safaan na ci ñetti xaaj yooyu mu def doomu bu fekkoon ne mboolem nit ñi rek am nañu yëg-yëgu ne ab safaan daf fee war a jóge wala dafa war a wàññeeku ba nam mën a gën a néewee rek gën ku gis ab safaan te amul kàttanu euh, amul baatu dindi ko ci man-manam wala ci làmmiñam mu naqar la ko ci xolam yeggali ko ci ñi nga xam ne ñoom seen baat dana ca man dara ñooñu yaakaar ne seeni baat man na ca dara it buñ ko mënee dindi ci seen baat alhamdulilah buñ ko mënul ñu yeggali ko ci ñi nga xam ne dañ koy dindi ak seen loxo kon jàppante boobu bu amoon jullit ñëpp rek am yéene jëlee fi am safaan euh, am yéene di soññante ci ndox ci yoonu jëm kenn ku nekk la la war fa nga toll yaa ngay bay sa waar sa kem kàttan la wóor na lan nga ci mënoo ko nga jàllale ko te jële féetee kaw loolu buñ ko defoon rek man naa soppi lu bëree bëri ci dundu doomu aadama yi mën naa jeexal lu bëree bëri ci ay sayyi'aat ak ay munkaraat yoo xam ne siiw na tasaaroo na ci jamono te doon lu mënoon a ñàkk ci réew moo xam ne ay jullit ñoo fay dund moo tax ci alquraanul karim ba ñu yàlla ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan aay boobu doy ñu sëkk lépp loo xam ne melokaan la wala jumtukaay la bu nekk ci jëmmu aji digle ji aji tere ji mën nañ koo jàng tey ci biir aaya boobu mooy di woote jëmee ci yàlla bil xikmati te kii woote jëmee ci yàlla ci xikma la jiitu ci moom mooy na xam ràññee bu baax innama adullu ila allahi ala basira xam-xam bu leer xam-xam bu dëppoo ak xam-xamu lislaam mën a nit ñi ci yoon bi nga xam ne moom la lislaam gërëm loolu mooy jéegu bu njëkk ci xikma mooy xam ràññee mooy a la ca toppaat lépp nag lu ñëw mën a tegu fa mu war a tegu a maw'izatil hasana mooy lu mën a xew rek nit ki am xam-xamu ne moom du ab yonent du malaaka waaye benn mbindeef la ci mbindeef yàlla yi benn jaam ci jaamu yàlla yi jullit bi ak nu mu mën a mel ak mën a def rek da ngaa jubloo laabirante moom ngir yàlla da nga koo yéene aw yiw bañal ko ab safaan kon booy wax ak moom booy jëflante ak moom wax jooju ak jox mu feeñ bu baax a baax yëg-yëg boobu feeñ loolu mooy li nga xam ne moom la borom bi santaane ne nañ koy dunde nañuy woote jëmee ci moom ci anam boobu te nañ ko waxee woon ki nga xam ne jullit la yëg na ne moom jullit la la mu xam ci diine ba mu leer ko bëri na wala bëriwul loola bu ko mënee jàllale ci ay mbokki jullitam ak jumtukaay bu mu ko mën a jàllalee loola lu war ci moom la loola day doon lu war ci ñoom dañuy nekk ni benn buur boo xam ne dafa dégg ne benn waay liggéeyam yëpp mooy day xëy di digle ko tere di digle lu baax di tere ab safaan mu wóor waa ñëw ne ko waaw yow li ngay def kan moo la ko sant ndax li ngay def sun wàll la ñun buur ñu la alquran waxoon ne alladina in makkatnaahum fi l ardi aqaamu salaata wa aatawu zakata wa amaru bil maarufi wa nahaw ani l munkar ñi nga xam ne buñ leen joxee nguur buñ leen joxee doole ci kaw suuf danañu taxawal julli danañu joxe azaka danañ digle lu baax tere lu bon kon yow ko sant te doo buur li nga wax lu wér la alquranul karim la waaye moo wax ak man ne wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkar te man kenn laa ci al muminuun loolu liñ ci jànge mooy euh, dëgg la buur am na sañ-sañu nose njaboot gëm leen yëpp bu ko neexee tànn ñu muy féetile diglee ko tere waaye loolu tekk na ñoom rek ñoo ko sañ bépp jullit buy dund xam lu baax mën a woote jëmee ca man koo digle xam ne ab safaan man koo soriloo nit ñi man leen koo sibloo man leen a bàyyi doo leen ko loolu day doon loo xam ne lu war na ci yow moo tax kooku bi mu tontu loolu buur bi rek buur bi da nangu tontu loolu bàyyi ko mu continuer di liggéey liggéey boobu nga xam ne moom doon liggéey kon euh, yow jullit yow mi jàng xam dara ci sa diine wala yow mi jàngul waaye ak loo ñàkk-ñàkk jàngee xammee nga am na yoo xam ne xam nga ne mënta ñàkk yàllaa ko farataal ci jullit boo gisee jullit buy sàgg ne loola man nga koo laabire man nga koo woo man nga koo fàttali ci yi woowu waaye safaan yi nga xam ni fees na ba ñëpp xam nañ ko doon te jàngoo rawat na nga jàng foo gisee nit ku koy def nga man koo laabire laabire nga jariñ laabire ko ngir yàlla wat ni ko loo ko sibloo ko ba mu bàyyi ko loolu aw yiw la wu rëy woo xam ne da ci jëlee ak te ay wax na yu bari da nga ci jëlee yàlla wax na ko da ci doonee dëgg-dëgg jullit am ci melokaanu jullit waaye lu bul am ni mooy kiy diglee ka tere na bàyyi xel benn aaya ci alquran boo xam ne mën nañu wax ne li ñuy wax ni yépp tënk na ko ca sóoru luqmaan luqmaan alayhi salaam ba muy dénk doom ja ne ko yaa bu nay aqimi salaa aqimi salaa mooy lan mooy bala ngaa woote jëmee ci lenn na fekk yow yaa ci jiitu na fekk yaa ci jiitu liñ waxoon léegi lislaam bëggul nanguwul mukk ak maa ak ñu a dem leen déedéet baax gaa yi ñëw leen ñu bokk góorgóorlu lislaam nanguwul mukk ak safaan yi nii maa toog ci safaan man waaye yéen wattu ni ko leen sori safaan nga ngële nañ bokk daw nañ bokk wattu ni ko ko kon yaa bu nay salaat doon na ko wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf deel liggéey lu baax wanha anil munkar deel tere ab safaan deel tere lu wasbir ala ma asaabak yow mii digle ak di tere loola mën na laa jural ñu la noonu mën na laa jural sax ñu la bëgg a fitnaal mën na laa jural ay jafe-jafe yu bari kon loolu day ànd ak wasbir del muñ ci lépp loo xam ne dal na la inna dalika min azmi al umur maanaam di góorgóorlu ci ndigal yàlla yi te aqimi salaat dana yóbbaale yëpp di laajante ak say mbokki jullit ci digle lu baax di tere ab safaan ànd ak di muñ li ci ay jafe-jafe loolu dafa bokk ci azmul umur dafa bokk ci mbir yi nga xam bi da war a nangoo sonn war kee jàppante ci coono war kee mën a muñee lépp lu moo tax aay boobu daanaka xaw naa tënk li ñuy wax lépp bu ñu jàngee taarixul islaam yonent bi sallallahu alayhi ay saxaabaam ak ñi ñëw seen gannaaw te wàccuñu aw yoon ñii góorgóorlu ci lislaam bu ñu jàngatee seenu dund ak seen siira seen taariya dañuy fekk bu feex dal la ak yi xam ne dafay dëppoo ak li ñuy am na ci salafu saalix ñoo xam ne dund nañ ay natt yu diis jànkuwante nañoo jafe-jafe yu rëy xañ nañ leen lu bari luñ waroon a am ngir lan dañoo jàkkaarloo ak buur dañoo jàkkaarloo ak borom doole du wàcc aw yoon imma ma ngay lombutu ay jullit wala ma ngay xotti war may ndigali borom bi subhanahu wa taala lu ko soob ñu laabire ko tere ko lañ ko war a tere moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ci njàngaleem euh, kàddu dëgg wax ko ci kanam borom doole boo xam ne dafa wàcc aw yoon rawat na muy kàddu boo xam ne dana jariñ loola bokk na ci jihaad yi gën a màgg ci jihaad waaye ci siiratu saxaaba ak salafu saalix day nañ ci jàngee ne lislaam li ko tasaare génnee ko Madina Munawara yóbbu ko mbooleem ci goxe àdduna mooy ay jikko yu rafet ñoom dañ doon woote jëmee ci yàlla ci seeni jikko dañ doon digle lu baax ci seeni jëflante ak seen jikko yu rafet di tere ak safaan ci dañuy jëflante nit ñi ak ci seeni jikko yu rafet te ba ba léegi rek tey boo demee dëkk mel ni Daaru Muxti sëriñ da ngay fekk ne foofu mu ñu ne ca daara la di waaye kon ba rawatina mag ña ñu ci bëree bëri dañoo am diine lool dañoo fonk jàpp lool fonk julli lool di daw ab safaan lool ngir lan roy bu ñu roy ci ay jikko kon bokk ci jumtukaay yi gën a gaaw te gën a mën a tafsir gën a mën a jariñ ci bunt bi muy diglee ko tere euh, la ngay wax nit ñi fexe ba di ko dund buñ la xoolee rek gis ko ci yow buñ la xoolee gis ko bu seen xel demee ci sax mooy seen xel dem na ci ak mbaax seen xel dem na ci jikko yu baax dem na ci taw ak safaan loolu rek doy leen ab soññ loolu mooy jumtukaay bi nga xam ne moo gën a màgg moom la ñëpp war a yittewoo Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ku bi muy woote ak ñi mu njëkk wuyu yaa bi mu def ci ñoom jikko yi mu def ci ñoom waxuma sax ñi nga xam ne dañoo jàngoon ba am xam-xam waaye ñi jàngul woon mu yar leen def ci ay jikko def ci ñoom ak def ci ñoom lislaam bu set wecc ñooñu bi ñu tasaaroo ci biir réew mi diggante bu gàtt ci lañ tasaare yoonam ci jikko yu rafet yoo xam ne jikko yi ñooy wax ak nit ñi jëflante yu rafet yi ñoo leen di woo ñoo leen di sibloo sabaan di leen ko sebloo loolu xam ne loolu bari yoon wi ba ñu ànd ak ñoom ci yoon woowu kon am solo la bu bu bu bu rëy la ngànnaay la diis loo xam ne euh, buñ ci bëggoon a yaatal mën nañ cee paase waxtu wu gudd waaye dañuy tënk wax yi fii di fàttaliwaat ñetti tomb yi nga xam ne moom la ñu indi benn nañ bokk xam ne digle lu baax tere lu bon farata ci ab jullit jullit bu ne nag fa man manam toll fa la ko lislaam liggéey looyee ñaareel bi nañu xam ne képp kuy diglee nga war naa fekk xàmmee nga ràññee nga waaye war naa fekk la ngay digle doon loo xam ne luy jariñ la la ngay tere doon luy jariñ saa boo xamee ne safaan ba am na sa digle day lor wala sa tere day lor amutoo benn àq ci di digle ak a tere beneen bi ñu war a xamit ne képp ku yàlla yilif loo sa kilifteef lu mu mën a toll lu mu tuuti tuuti lu mu yaatu lu mu rëy rëy rëy am nga masuuliya bu rëy sa diggante sa borom ci ñi nga yëf ndax yaa ngi leen di digal li nga leen war a digal ndax yaa ngi leen di tere li nga leen war a tere te bés yi ñëw insha allahu yàlla dana la laaj lépp waaye mu bàyyi xalit ne yoon bi gën a gaaw ci digle lu baax tere ab safaan mooy fexe ba mbaax boobu seexlu safaan boobu sib ko bañ ko doon luy feeñ ci sa say wax ak say jëf doon lu feeñ ci say jëflante ak say jikko nga xam ne day mel ni làmp buñ taal ñu bari bi góor-góorlu ci mbaax doonte waxoo ak ñoom santoole di sib ab safaan di ko daw te jàngee ko ci yow doonte waxoo ak ñoom loolu mooy yoon wi nga xam ne moo gën a gaaw mooy yoon bi gën a jub yoon nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la saxaaba bi doon dox ña yaroo ci ñoom ci yoon woo dox ba ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu yoon woo la doon àll ñim ci la leen yar muy bëgg lu baax di woote jëmee ca seexlu bañ ab safaan di ko daw di ko wat di loolu mooy tomb bi nga xam ne moom lañ doon fàttalante ak yéen tey muy al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar ak sóot yim làmboon ak yenn wasaay yi nga xam ne mën naa dimbale kii soobu ci liggéey boobu ba mën a yeggale am njàngaleem hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf jazakumullah xeyran ñu ngi leen doon fàttali ne ñu ngi fii ci jumaay Tuuba ci waxtaan yi nga xamante ni daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy ànd ak yéen saa su nekk waxtu ne rawat na ci weeru sel bi di weeru koor tey jii nag ñu dalloon fii ki nga xamoon ni eh, sëñ Souleymane Badiane di borom xam-xam seet na bu baax a baax xam nañ bu baax a baax tey li aju ci al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar mu leeral bu baax nag am tomb yu am solo yoo xamante ni jot na koo indi li ci jiitu mooy wax lan mooy maaruf xam nañ bu baax yaatal ko as ko faram-fàccee ko ñu bëree bëri kii war a ci mbir mel noonu xam fan lay teg tànk xam. nan la ci fexe ko am ci ndam ci li nga xamante ni mooy loolu waaye itam xamle li nga xamoon ni mun ka xamle ko yaatal ko faram-fàcce ko li nga xamante ni noonu la yaatale li nga xam ne moo di maaruf ci biir loolu itam ci la wax wasaay yi wala boog ci la wax li nga xam moo di euh, ni mooy yi aju ci biir moom yëpp. loolu mu ci li nga xam ne moo di wasaay dañ ci wax tuuti rek nga xamante ni moom wax na ne buñ doon xam ne tey maaruf mooy ak topp lu ñu a topp loo xam ne war a sañ koo xam ngir teg ci suñu tànk baax waaye tam xam ne munkar mooy ak naas yi ñun ñëpp li ñuy daw kenn ku ca gis euh, sa bopp wala sa morom wala sa bopp wala sa waxam yaa mooy almasiya la jàpp xam ne ne ko bu baax a baax bu ñun ñëpp ñu xam ne loolu kat ndikke lu ñu war a daw la lu ñu war a moytandiku la bu baax a baax bu wax ni itam loolu nit ñu baax ñëpp moom ci lañ tegal ne itam sallallahu alayhi wa ci loolu la ko doyaloon ndax dafa am luñ ko waxoon loo xam ne euh, mooy xeet bi gën ci xeet yi mooy xeet boo xamante ni mooy ngeen ngi bi lépp mooy xeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy digle lu baax waaye tere aw safaan loolu tax na yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën a sañ ko tuddee annabiyul aaminul naahi loolu itam leer na ko bu baax a ci biir loolu itam ci loo xam ne alxuraan la alxuraan këriñ nga xam ne mooy delluwaay bi borom xam-xam bu ne bu dee borom xam-xamu jullit wala lislaam wala nekk ci biir moom saa boo waxee ko waxoon alxuraan lii la ca wax mën naa ñu xaw caa sikk sàkka doonte mën a sën koo gëm wala mën a sën koo kii wala kan nga xamante ni moom la ko moo koy ni koy barloo ci li nga xam mu daal bu wax ni alxuraan kay boobu nag am na ayat am yu bëri yoo xamante ni mën naa toog ci fanweer ak juróom-ñett yoo xam ne muy wax rek ci digle ci digle lu baax waaye tam xam lu baax di ko digle bu baax a baax loolu bu fekkee day tekki mooy lii am am solo am solo boo xamante ni euh, moom la digle lu baax am solo ni ki doon tam ci wax ne lu tolloo fukk ak juróom-benn ci ay aaya yoo xam ne moom nga mooy euh, li nga xam ne mooy li ñu war a bàyyi muy sifaan lu baax ñu war koo xam màcc na ko baax baax yooyu itam jot na cee dara euh, baax baax loolu itam bu fekkente ne loolu am na lu muy digle wala lu muy tekki ci aay bi nga xam ne da waxoon kuntum kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar bu na ñu koo tàgg waaye rawatina xeetam li nga xamante ni ñoom ñoo tënk ci lan ñi nga xam ñooy digle lu baax waaye itam te moytandiku loolu nit ñi ci li nga xamoon ni safaan lu baax loolu itam yaakaar naa war nañ koo bàyyi xel bu baax baax

xam ne saa su ne waxtu ne boo gisee nit boo xam ne ne yelloo na ko nga dindi ci la nga xam ne moom dal la suñu borom subhanahu wa taala day lu néew la nga dindi joxe ci mbir mën na ci euh, yoon li nga xam ne ni sarax moo nag digle lu baax saraxe la waaye kër aw safaan itam loolu saraxe kon mën nañu itam loolu bu fekkee am na euh, ci mën nañoo xam ne wàccuwaay bu am solo boo xamante ni moom la ci ci loo xam ne ne xelal loolu ni mu xelal loolu nit ñi nag ñu jëwoo leen wax leen ni mu amee solo ni mu baaxee ni mu bon xam-xam yi euh, doon defee ñu bëree bëri koo xam ne ah waaw kay kon man ki tey naa tàmbale li nga xam mooy am bil maaruf wa nahy munkar mu leen déet nag dafa am suuf yoo xamante ni ngir nit ki mën koo def dafa am foo jëm sart yooyu nag lu waaye mu tënk ko ci waxi Cheikh Khadim Sall Ba ci. wax joo xam ne wax na ko ci jërëm ba am solo boobu nga xamante moo ni jawhar na fi jawhar nafis euh, te la ci gën a fës te ñu gën ko ci war a xam te mu ëpp lu bëri bëri te yaatu mooy tax sireful iman nit ki war a digle wala mu tere war naa xam li muy digle li la waaye tam ndax moom tënku ci a li nga xamante islam faw nga xam Euh, iman dëgg-dëgg bu nekk ci yow dëgg-dëgg nga wéral ko dëgg-dëgg ba nga mën a tàmbalee mën a liggéey liggéey boobu nga xam ne moo di euh, ak iman waaye boog li nga xamoon ni ak amru bil maaruf wa nahyi anil munkar mu xam ne ko nag wax ne itam bu ñu doon xam ne tey foog nit ki xam fan lay jëm rutul ilmi ndax nit bu fekkee ne xamul dañu faral di faral di saytu dayu kii kii képp ku yàggu dara yaakaar naa mënta ki nga xam ne moom moom lañ yaakaar ne daa am lu muy defee ñu yaakaar ko ci moom te yoru ko am ko mënu ko ñëw kon yooyu tam nee na faw nag ñu xam farata yi xam sunna yi jàng xam ahkaam yi xam arkaan yi doo ko mën a digle doo ko mën a tere yooyu tam euh, wax na ko ci biir ay wax mu wax ne itam faw mu nekk koo xam ne aani faw mu xam ku xam lay doon xam lan mooy munkar dëgg rek comme ni mu ko leeral ni mu ko yaatale ñu faram fàccee lan mooy munkar foog mu xam lan mooy maaruf dëgg nag xam ne ko kon li nga xam ne dafa yaatal nit ki nag foog mu xam ñaari yooyu xam lii kat munkar la xam lii kat maaruf la ba ñu def sa diggante munkar ak maaruf ndax ñoom ñoom ñoom ñaar ay ànd si bu ko xamee rek mën naa tàmbali rek am benn charte boo xamante ni mën naa euh, déglu foog nga itam boo xam kon kon kattan mën a dindi euh, euh, munkar bu fekkee am bu fekkee yow amoo dara ji amoo kilifteef bi amoo wàccuwaay bi bàyyi na xel joxuñ leen loolu nga ngay digle ko tere bu boobaa yaakaar naa mën naa tas tasal ko donte mën naa mën a am tuyaat bi waaye euh, na ngay digal ak na ngay tere ndax nañ ko dégg loolu tam wax na ne ci jumtuwaay yi mu ci suuf ci xaw mu doon nit koo xamante ni euh, kilifa lay doon koo xam ne buñ mën a euh, xam rek ko bu baax a baax aadaay itam foofu am jaar xaw nga maanu nit koo xamante ni nit ku maanu terewal ci sa baneex bàkk waaye digle wu ci sa baneex ayyuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha öte burası itibariyle loolu suñu borom da koy teel kon mel na ni da ngaa war a yëg jaar fi nga war a jaar boo ci xam ne ndax yaa ngi ñëw bu boobaa mën naa lii nga ñu fekkee loolu doo ko xam loolu itam nekkul ne nit di am kilifteef rek di jaay sañ-sañ bi di wane ku mel noonu loolu sëñ Tuubaa Cheikh Ahmad Bamba radiyallaahu anhu wa nafa'anaa billaahi wa barakaat am na euh, njàng mu am solo misaal mu am solo mu tudd euh, def lu mel ni ñi nga xam ne ñoo ko fekkoon te nekkoon ci këram ci këppaaram ci wét ci wetam doon digle ay digle eh, doon di di digle ay digle di bàyyi ay garab moom bu fekkaan njëkk laa gis ngay def naka sa dul noonu du la wax dara du la feeñ day daal jël lu waat boo ay fan mu daal di woote nag ñi nga xam ne nag ci kër gi buñ dajee muy tudd mbir mu mel noonu nanga may baaxul nanga ne kenn mu ko def nanga bu ko def nanga bu ko defee yow ba nga xam ne yaa ko defoon war ngaa mën a xam ne yow nii wax ji yàqu mën naa a gisul mën naa la ñoo gisoo waaye nag am na lu muy jàngale loo xamante ni dal na sa kon mën nga cee jàng yow mi ko doon def ngir bàyyi ko may leen ko baax baax yow mi nga xam ne jotoo ko def itam jotoo jàng da nga mu jëriñ ba ñu am jàng ba am solo loo xam ne seen tuwaay Cheikh Bamba doon na ko def ci ñi nga xam ne ñooy ay at baax mu amoon solo lool ci xikma ji ci euh, yërmande ji ci ci weexte ci. war leen a bàyyee seen bopp ñu doon seen bopp tuuti waaye teewul nag dina xam ñi mu nekk ak ñan la diw lu mu doon diw lu mu doon diw li mu lu lan lan la ñeme diw lan la ñeme bu boobaa ci lay mën a ñëw rek mën a xam nan lay yare di diw mi nan lay topp diw mi nan lay jubbante diw mi ci loolu lépp nag kon kilifa taxul nga def tajasus di yëg nit ñi ba doon fekk ñu def ab safaan nga daal seen kaw bu boobaa mën naa am sa xol daal di jóg ci ñoom la nga xam ne moom la tere ñii di ko def secteur di ko def ndax nan la ñu fekke ak nan la ñu digle maanaam xikma mais tam dina wax ne jumtuwaay yi bokk na ci faw nga am xikma am xelteef euh, li nga xam mooy yaay fooy nit ñi nag yaay tiim nit ñi ci wàllu xam-xam ci wàllu seetlu ci wàllu basiira ci yooyu yëpp faw nga am ci yu bëri gànnaay yu bëri yoo xam ne mooy gànnaay téye ko am ko ngir mën di ko jëfandikoo di mën di yàgg waaye boo toll am yoon wala sax ñoom ñu ñu ñu ñu kawee parce que ci jamono bi tey bu fekkee ne da ngaa ko bayal nit faw jumtuwaay yi nga xamante ni moo tasaaroo jumtuwaay yi nga xamante ni moo gaaw a yaatu lépp lu ci jumtuwaay yi nga xam ne ñëpp daw nañu wuti ko ñenn ñi xam a a nii ji faw nga xam loola rek waaye boo dee xam ko nit ki nga yar moo la gën a kawe moo la gën a fort am na lu muy xam am na lu muy seetaan am na lu muy déglu am na keneen bu muy digal boo xamante ni yow xamoo fekkee woo ko ak loo xam